ci dellu siwaat ak yéen ci daara ji ngir jàngaat li nga xamante ni nii moom moo di alquranul karim téere bii nga xamante ne nii laa yatihi lbaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi téere bu leer téere bu jub téere boo xamante ne nii ku ci mooy raw ëllëg raw fii ci àdduna raw alaaxira ku ko dégg ku ko jàpp ku ko jëfe am ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala waye soko wane ginnaw soko dumo yo di nga sonu fi ci aduna tabu al-akhirah di nga fa am bugal mu tar waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka yalla neena al-quran boko baye rek da ngay son ci ay stress ngay dekk ci ay coono ngay dekk ci sa aduna mbokk yi commencé ak yeen ba ñu ngi jangat ay ayah commencé nañu yéen suratul an'am anaam fa dem suratul rand jóge fa dem suratul isra tay nak dañuy ñëw ak yeen ci suratul mu'minun nga xamanteni ni yalla mu ngi tudde gaay yi gëm bo démé ca bu sayyid qutb néna wala nga ni suratul iman saharu gëm yalla allahu akbar mbokk yi yàlla subhanahu wa ta'ala dafa xam doomu aadama indi ko ci àdduna xam li koy jariñ mu daal di jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay aaya abdullah ibn umar moo ñuy nettali nee na benn guddi dañoo toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril dikkal ko ndax bu wax yu daan wàcc ñu daan togg ak moom dinañ ko xam dañu xam ne instant bi kii dafa nekk ci xaal bi maanaam malaaka ñëw na bi mu demee ba dal mu daat ni leen jox nañ ma fukki aaya fukki aaya yoo xamante ni nii képp ku ko jëfe dugg àjjana waaw ah, képp ku ko jëfe rek dugg àjjana laqad unzilat alayya ashru ayatin man aqaamahunna daxalal janna faqaala qad aflaha al muminuun mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala ci saar woowu nga xamante ne nii tey jii moom la ñu war a commencé saar la woo xamante ne nii yàlla dafa lim ay mbir ay mbir ay melokaan ay jikko ay jikko daan ni gaa yi mbubboo jikko yii gaa yooyu bu yowmal qiyaamee buñuy miras aljana ñom ñokoy don, xam nga fi ci aduna sa wajur day genn aduna ñu miras sa alal yi bay nga donu ca kanen donu kanen donu ku ci bokul du ci donn yalla neena bu yawmal xiyaamee aljana kum si ka dañ koy miras suñu koy mirasé nak jikko yi may waje waxtane insha Allah rabbi ku mu nekk ci yow rek na nga xamni di nga am cër ca aljana da nak li gëna a neex aljana ji dàq ngay don moy aljana firdaus aljana yeb neex nañ mais firdaus mo ci dàq yonent bi sax neena na bu ngeen di ñaan yalla aljana na ngeen ko ñaan mo may leen firdaus nga xamni kon aljana firdaus han ah, aljana ju neex a neex la yalla reene jikko yi may waji wax inshallah rabbi jurom ben jikko la jurom ben ku mu nekk ci yow insha allah rabbi bu ñuy miras aljana da ngay donn yaay ya yaay aisha dañu ko laaj waa yonent bi lan mo nekkon ay muhammad sallallahu Alaihi wasallam lan mo nekkon ay jikkoom yaay aisha daal di tontu waji ne ko yonent bi ay jikkoom alquran la won alquran mo nekkon ay rek daal di jang sar wi ñuy waji firini ni qad aflaha almuminun ndeysaan yaay aisha di jang sarwi jàng fukki ay yu njëkk yi ndaysan mom yaay Aïcha yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko mbokk yi yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax baada audu billahi minash alshaytani rajim بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون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 أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون يالو لا غاي گم تخنن gaa yi gëm texe nañ texe gu leer gu wóor da nga doon def examen jàll nga d'office nga am demoo ay deuxième tour ak amul ay oral ak yëpp déedéet yow texe nga xad aflaxal muminuun gaa yi gëm texe nañ mu mel ni dañoo poser question waaye yàlla ñan ñoo ñi gëm ñan ñoo ñi nga xamante ni dañoo gëm mu daal di commencer lim alladina hum fi salaatihim xaashiun jikko bi njëkk nga xamante ne nii ku mu nekk ci yow bu yemal xiyaamee di ko doon àjjana mooy koo xamante ne nii bu xasee ba taxaw di julli day fàtte léppi àdduna jàmmarloo ak yàlla subhaanahu wa taala toroxlu alxusuu fi salaa alladina hum fi salaatihim xaashiun bàyyi leen xel bu baax premier jikko bi yalla ñeuk tuddu dina am lu ci leral ci kanam jikko bi yalla ñeuk tuddu ci jikko yi defar doomu adama ci jikko yi nga xamanteni ni ku mu nekk ci yaw nga texé fi ci aduna texé alakhira moy boy julli waxuma la julli de boy julli bo demé bay julli nga faté aduna nga fase aduna, mag ñi lool lañ xamoon motax buñu bu ñu ba taxaw kambar fase nañ aduna, waaw waaw fase nañ aduna, dadi دغمل يالله سبحانه وتعالى ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة ادنا دا بري اي فتنه دا بري اي بروبليم نيوم بي جولي جوتي ني تاخو كبر فاتنا لب سين جيم يو تيد يوي لا نيو جيل داف كو كونتاكت ديريكت اك يالله سبحانه وتعالى نيو جيل سين خولي فاسكيني مو لاب سين روحي فاسكيني مو سيت ويتي نيو جاكارلو اك يالله ñu jàkkaarloo ak yàlla subhanahu wa taala waaye mbokk di julli di parax paraxi fii di xëccub sikkim fii di wokkatu lu nekk nga dugg ji julli gi ku la seen xamul looy def bu njëkkoon buñ daan julli buñ daan taxaw nii ba kàbbar ah dafa daan mel ni ñoo xamante ne nii picc moo taxaw seen digg bopp yi du ñu yëngatu dañuy concentré wu ba bu leen picc seenee mën na foog ni lii ak garab la day ñëw taxaw seen digg garab seen digg seen digg seen digg bopp yi ndax lan moo tax ndax torox goo xamante ni nii ah dañ koy bàyyi xel ndax aaya bi moom moo taxoon alladina hum fi salatihim xaashiyoon mbokk yi xanaa xamoo ne am na ci borom xam-xam yi ñu wax sax ni torox googu noonu farata la si julli mu ëpp ci ñu ko wax am na ñu wax ni euh, ruknu la ci mais gis nga am nañu te nee nañ farata la farata da ngaa war a toroxlu parce que boo toroxlu julli gi du am benn sens waaw mu ngi noonu kon boobu mooy jikko bi ci njëkk ñaareelu jikko bi yàlla subhaanahu wa taala wax ni walladina hum ani laxwi muridun allahu dafa neex yàlla même aaya yi ni mu koy tegalee dafay am relation xam nga yàlla nee na gaa yi baax yi texe nañ mu ni gaa yante bu ñu julli dañuy toroxlu مراني بوكنا كي جيكو ينارل بي والذين هم عن اللغو معرضون غاي نيغا خامتيني ني اي تياخان دوخو نيو تي واخو نيو تي تياخاني واخ اك تياخاني جيف ولا لين لو خامتيني داف لين دي دا لين دي بيرتورفي سين خيل يي تا مو نيك ميرو ادونا دي جيخ لغو القول ولغو الفعل والشعور بكل شيء يفنى واو وشعور الحزن بكل شيء يفنى لب لو خامتيني ني دا فاي جيخ داي فنا دولين سونال دوني واخ واخي تياخان دوني جيف جيخي تياخان مبوكو خامغا كي دون جولي تروخلو كوكو فاتنا اي تياخان كوكو تلاتول اي تياخان موتاخ تروخلو غيغا تروخلو مولاي ماي بوبو سيرمالي سو генي بوروم بي اي تياخان دو تيا تاخاو دو تيا واخ دو تيا ديف واو واذا مروا باللغو مروا كراما mooy boo jullee ba pare bi nga jullee tisbaar ba pare dootoo defate ay caaxaan dootoo waxate ay caaxaan dootoo xalaat lu lay perturber lu lay sonal di la teg ay coono ci mbir yoo xamante ne nii mbir àdduna la lay jeex dootu sonal yow alal dootu la yaa ngi dégg mbiri àdduna yu bare baree baree baree bare yuy sonal doomu aadama yow dootu la sonalate waaw waaw yàlla waxaat ci aaya wa ida samiu laghwa aradu anhu bokk na ci boroom gaa yu baax yi boroom jikko yu baax yi bu ñu séenee ay caaxaan mbaa ñu dégg ko ñu ne ko romb ndànk daal di dem waaw ah, wa ida samiu laxwa aradu anhu waaw beneen bi mu ni wa ida marru bi laxwi marru kirama walladina hum yàlla subhanahu wa daal di dugg ci beneen jikko bi mooy ban والذين هم للزكاة فاعلون الله خور الآية بما في ليجي خم غنينا لا يالا نينا والذين هم عن اللغو معرضون غاي ييغا خامتيني ني امول لين لو لين دي سونال سي ادنا دو تي اخاني واخ دو تي اخاني جيف ارال سونو لو لين لولو وارال يالا ني بوكو لا سي بوروم جيكو يي غاي ييغا خامتيني دانيو غيني اسكا تي ني فري آية بي ني يالا اسكا لا في واخ والذين هم للزكاه faailuun yàlla nee na bokk na ci jikko yi yii texe yii tax doomu aadama texe fii ci àdduna texe allaaxira gaa yi nga xamante ne nii dañuy génne azaka parce que bu fekkee yàgg ngi julli toroxlu xam ne yàlla kenn la loo am moom la loo ñàkk moom la yow caaxaanoo doxoo ci caaxaan waxoo ci caaxaan doo ci wax doo ko jëf dara sonalu la waaye waaye boo yoree alal di nga génne asaka parce que bokk na ci caaxaan ak nay nay caaxaan la te yàlla comme que nee na walladina hum ani laxwi muridun mu pare ca mu daan ne walladina hum li zakaati faailun gaa yi azaka mbokk yi am na yeneen boroomi xam-xam yu firi aaya bi walladina hum li zakaati faailun bokk na ci gaa yi texe ñi nga xamante ni dañuy laabal seen xol ak seen bakken ba duñ def bàkkaar az zakat foofu noonu mooy tatahirul qalb am na ñu ko firee noonu imam Qurtubi nee ñaari firi yëpp baax xam nga lan moo tax xoola suuratu shamsi lu yàlla wax af laxa man zakkaaha suuratul mu'minuun léegi bi may def jàngat ci saar wi ma seetlu ni xoolal suuratul mu'minuun lu mu commencé qad aflaha al mu'minuun qad aflaha boo ñëwee suuratu shamsi nga fekk fa qad aflaha muy ñaari baat yom te ñoo niroo teg teg qad aflaha al mu'minuun fii mu ni qad aflaha fee mu ni walladina hum li zakati faailun fii ci surtout sam si mu ni qad aflaha man zakkaha kon ñaari firi yëpp baax na kon walladina hum li zakati faailun am na ñaari firi bokk na ci ñi nga xamante ne nii dañuy donnu àjjana gaa yi génne azaka wala nga ni bokk na ci ñiy donnu li nga xamante ne nii moom mooy àjjana gaa yi nga xamante ne dañuy laabal seen xol ba mu set wecc ñaan soxor bon bañante yooyu yëpp dara du ci nekk waye tamit kasaalika ñu label seen bakkel ba du leen wo ci caaxaan mukk ñu daal di koy wuy mbokk yi ñentelu jikko bi walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin yàlla neena bokku na ci jikko yi nga xamanteni ni ku mu nekk ci yow insha allah rabbi bu ñi mirage aljana da ngay doon kenn du la ci ëppale ta firdaws nga jëm han gaay yi nga xamante ni dañoo fegu duñu ñu njaaloo waaw duñu njaaloo bu ñu demee bay séq ak jigéen rek ñaar ñii la seen jabar mbaa seenu jaam te jaam amatu te ci booba daganoon na seen jabar mbaa seen jaam ñaar ñooñu luy séqal yàlla nee na kaneen ku dul ñaar ñii amuñu ak yow relation du ñu séq ak yow lenn du ñu njaaloo boobu moom mooy ñeenteelu jikko bi mais yàlla daal di tëjee aaya bi lu am solo lu lu yéeme waaw mu ni famani bi taxaa waraa zalika fa ulaayika humul aadun waaw yàlla nee keneen ku fi bàyyi yii ma wax nag dem ci la neen di caaxaan tëdd jigéen ju la daganul wala ngay njaaloo yow na nga xamne da yaangi dépasser limite yi fan la yem loo lo fa te ding ko reccu di nga tok joy ding ko reccu réccu waye tamit yalla dafa waxaat ci bir ay yi fa innahum ghayru malumin mu nek lu am solo muni gaay yi nga xamne dañuy and ak seeni soxna di and ak seeni jam ñoñu kenn du len xass kenn du len yedd bi lim ci jublu moy dal jigen bu fekke dagan na la am nga droit sëy ak bu la waawaw nit ñi nag nañu wax sa soxna na xëy am doom wala nga yor soxna yu bari ñu am doom yu bari nit ñi naan diw diw diw diw yàlla nee na bu leen faale maadaama soxna yi dagal nañ la daal amal ay doom amul problème bu fekkee mën nga leen a yor su fekkee mën nga leen a yar su fekkee am nga kàttan joo leen yore amul problème fa innahum xayru malumin waaw soxna dagan na la yàlla nee na sëyal ak moom dagan na la amul problème bay boo gaa yi wax waaw mbokk yi nit ñi kenn mënta mucc ci ñoom nit ñi kenn mënta mucc ci ñoom boo takul jabar ñu ni est-ce que wér na soo takkee takkaat takk ñu ni kii ak a bëgg jigéen soo noppee ñu ni moom ne comme ab poupée du wax boo waxee ñu ni ak a bëri wax boo ajijee màkka ñu ni daa bëgg ñu naan ko alaaji mbaa ñu naan ko ajaratu soo toogee ñu ni ak a nay loo def ñu wax mbokk yi moo tax yàlla la xam ba ci biir saar wi mu ni képp ku séy sa soxna mbaa nga séy ak sa jaam fa innahum xayru malumin kooku kenn du ko yedd kenn du ko xas amul problème mu ngi noonu kon loolu mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax moom mooy ñeenteelu jikko bi macha allah yàlla subhanahu wa taala juróomeelu jikko bi mu daal di wax ni walladina hum li amaanatihim wa ahdihim allah juróomeelu jikko bi yàlla nee na bokk na ci gaa yi doon na àjjana ñi nga xamante ni nii dañuy sàmm kóllëre dañuy sàmm kóllëre jeex na nga ne ma gën kóllëre ma ne la kóllëre gi dox sa diggante ak sa boroom moo njëkk ak kóllëre gi dox sa diggante ak sa moroomu nit gan kóllëre moo dox sa diggante ak yàlla mooy nga jaamu ko waaw ساروين دوزيم دوزيم ساروين ديال سورة الرعد أفما يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله جسنا الذين يوفون بعهد الله مم لن موسم دوزيم لسون تي تي ولا تروازيم تي فير القرآن سمي تروازيم bokk na ci gaa yi yàlla fay àjjana ci suuratu Ra'd gaa yi nga xamante ne dañuy sàmm kóllëre seen diggante seen borom mooy dañuy julli dañuy woor dañuy natt azaka bu ñu mënee dem Makka dañuy dem Makka li leen yàlla diggal dañ ciy nekk li mu leen tere dañ koy def li mu leen tere dañ koy bàyyi. moo tax mu ñor fi daan ni walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'uun jikko bi nga xamante ne nii moom moo ci mujj muy sixième bi moom mooy. walladina hum ala salawatihim yuxaafiduun yi yàlla subhaanahu wa nee na bokk na ba tayit ci jikko yi nga xamante ni nii ku mu nekk ci yow préparé sa àjjana leer na macha allah sa passeport pare na bañ tamponné ca visa bu dugg rek direct donnu àjjana firdaws mooy gaa yi nga xamante ne nii dañoo fonk julli ca waxtu wa waxtu julli du leen raw mukk mukk mukk mukk lu ñu mënti def fu ñu mënti nekk bu julli jotee fàtte nañu lépp juglal seen basang julli allahu akbar mbokk yi xool leen lan laa leen doon wax ci commencement ba su ngeen xoolee yàlla julli la njëkk tudd ci jikko yi moom la mujjee tudd bu njëkk bi mu ni gaa yi toroxlu bu mujj bi mu ni gaa yi nga dañ koo fonk kon ndekete sa julli bo beugé mu bax il faut ngay toroxlu ba pare nga fonku ko waaw qad aflaha al muminuun alladina hum fi salatihim khashi'un khushu' ñëw muy toroxlu mu lim dilim dilim di ba ci juróom bennel ba mu daan ni walladina hum ala salawatihim yuhafizun yàlla nee na ulaika humul waarisuun alladina yarisuuna alfirdawsa hum fiha khalidun yàlla neena ñi ñoy ñooy doonu àjjana ñii ñooy dugg biir àjjanay firdaws xoola firdaws la wax kon mbokk yi képp ku bëgg a dugg firdaws daal juróom benn jikko yii na nga fexe mu nekk ci yow ndeysaan fi may jeexale nag dina am koo xamante ne nii mën na ni moom day mus naa def bàkkaar mën naa am daawul julli ci waxtu mën naa am daawul toroxlu mën naa am mosoon nañ koo jox kóllëre mu daal di koy dagg matalew ko ci digganteem ak yàlla mbaa digganteem ak nit mën naa am moom day daawul joxe azaka kooku na xam ne bu tuubee bis ni ki tey yàlla jéggal na ko bàkkaar yooyu yépp wala mu ni mus naa ànd ak jigéen ju ko daganul masalan na tuub bu tuubee jéggalu yàlla subhaanahu wa taala yàlla jéggal na ko loolu mu fexe ba loolu bañ koo dalati ci lépp nag bu ko defee bu yowal qiyaamee mu mën a bokk ci gaa yi dugg àjjana firdaws yàlla nañ yàlla nangu suñuy jaamu yàlla yàlla nañ yàlla jéggal suñu bàkkaar yàlla nañu yàlla daf ñu bokk ci waa kër alquranul karim ahlul quran yàlla nañ ci yàlla boole yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def in uridu ila al islaha mastatant wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh